ñi ñëpp li xew ci fan yi daf ñoo war a yeewaat ci lu bëri wala delloo ci lu bëri mooy mu mu gën a dëgëral suñu yëg-yëg ci lan mooy suñu wareef ci réew mi parce que it askan wi daf ñoo am dafa wax ak ñun te dañoo war a am dégg-dégg euh, tey kenn ku ne ci ñun amul kenn ci ñun koo xam ne war ngaa fëgg dënn mais je suis sorti victorieux démocratie sénégalaise gagné na waaye individuellement ak collectivement ñun ñëpp ñàkk nañu parce que ay bàkkan rot na ci ay nit gaañu leen ci gaañu yoo xam ne mën na ñu mën a yàq seen àdduna waaye compliqué ko ndax ku ci manque ku ci ñàkk bët wala nga ñàkk ci loxo wala nga ñàkk ci tànk euh, cër la yoo xam ni am na solo trop ci dundu nit kon quelque part la Sénégal a perdu na ci lii waaye ñàkk na ci lële moo tax kenn waru cooy génn di bàkku waaye dañu war a renforcer dafa war a renforcer suñu suñu yëg-yëg ci lan mooy suñu responsabilité suñu wareef ci réew mi ku woote nag walla ku ñu ne yaa ngi dem bërëb sàngam boo wootewul sax suñu mbokk journaliste yëpp ñëw caméra yu bari boo dee nit tuuti boo tëddee di doo nelaw loolu du ndam de lu ñuy bàkkoo mais daf la war war a gën a yokk xalaat ci li war a doon sa diggante ak Sénégalais yi parce que Sénégalais yi dañ dañoo ji kóllëre ñun ñi ñëpp may nañ ñu lu ñu lu ñu ma ne lu ñu musul may kenn de waaye du néew ñu gis ñu may ko nit kon ñun li ñu war a dese ci suñu àdduna mooy suñu bakkan suñu temps suñu alal donte amoon nañu yëg-yëgu balaa lii yëpp di am waaye tey lañ ko war a gën a fëddali su ma ne ñun nag wax ma man Ousmane su wax ma Pastef parce que Sénégalais yi kenn ku nekk ci ñun la ñu uyusi kenn ku nekk ci ñun uyusi nañu te jiitu loolu xeex bi ñu doon xeex te niroo ko nag bokk ko parce que li ñu bokkul mooy ñun parti politique lañu yéen mouvement citoyen yi parti politique projet bi gën a rëy mooy nu muy def ba jot ci lenge yi ñuy décider nu réew mi di doxe li mu tënk ci ay xalaat ak ay programme mu appliqué ko mouvement citoyen nag amul boobu ambition loolu rek mooy wute ji waaye amul leneen lu ñuy yëkkati fii te ñu wute ci ci li ñuy xeex ngir réew mi loolu ñuy xeex nag ne am na benn doxalin bu fi am ñu mën ko wax système ci tubaab ñu bëri dañ naan pourquoi ñu wax système mais système du lu négatif parce que ñun li ñuy woote sax système la système mun nañoo ute système interaction la mooy ay jëflante yoo xam ne ay kuréel ak ay nit dañ koy am ngir doxal seen doxalin loolu mooy système kon li li ñuy proposé suñu nee système bi fi nekk baaxul ñun beneen système la ñu proposé donc terme système ci boppam du moom moo posé problème système dina baax wala dina bon damay faral di wax ni euh, ku gëmoon leneen balaa diine di ñëw da nga nekkoon ci benn système de croyance boo demee di dox di dox ba diine ñëw nga ne ah man de diine islam wala diine catholique doy na ma nga dugg ci da ngaa changer système simplement mais même nit bi la moo tax nit mënoon a nekk ci système système ba baaxul mu dem ba tuub gis ni gis na lu gën ñëw amal njëriñ système boobu kon suñu nee lañ doon wax ak sénégalais yi boobu ba léegi ne leen système bi fi nekk baaxul moo tax ndaw ñi mënuñoo am xëy moo tax ndóol mënu fee jóge moo tax courant bi mënul dox moo tax euh, njëg yi cher na muy lekk bi muy luwaay bi muy leneen leneen looloo tax paj mi jafe na sooxe na njàng mi naka naka noonu loolu ñu doon wax sénégalais yi di leen ko wax loolu ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp waaye daan nañu dem yenn saa yi ba commencé ci am xel xel ñaar naan est-ce que sénégalais yi sax bëgg nañu changement am dëgg dëgg dëgg léeg dañ doon wax ni ki gën a toroxal sénégalais yi bu élection jotee mooy dem jëli alalu réew mi di ko jox sénégalais yi ñu ñenn ci sénégalais yi nag du ñëpp toppaat ko sànnilaat ko carte mu toogaat fi cinq ans di leen toroxal ci loo xam ne peut-être vingt mille francs la leen jox wala cinq mille francs wala dix mille kon demoon nañ ñun ñii di woote beneen beneen beneen modèle ba léeg sax nga xaw a am xel ñaar waaye lii xew dafa wane kon lañu ñu jëmbatoon sax na meññ na ba tey garab la loolu wane na wane na ko ci li xew nii parce que ndaw ñi mag ñi jigéen ñi góor ñi ñoom ñëpp dañoo jóg taxaw te taxawuñu lu dul gëm gi ñu gëm liñ leen doon woo ak liñ leen doon yee di leen wax dëgg ci réew mi ak ci niñ ko yore kon loolu dafa war a yokk suñu responsabilité ci réew mi responsabilité boobu nag dafa ànd ak ñu xam ni mënuñoo tasaaroo kenn ku nekk beru fi nga ne ba pare ñu yaakaar ni mën nañu am résultat ci dëgg gi ñuy woote bu dee nag ñi ñuy jëflanteel te mu leer ñu ni nekkuñu ci dëgg mu leer ñu ñi seen bopp rek lañ fi nekkee ak séddoo mën nañu dóorante mën nañu xasante mën nañu tëjante kaso mën nañu yàkkante lu ne waaye bu séddoo jotee mën nañu fàtte loolu yëpp dajewaat pour séddoo bu dee ñoom ñoo mën loolu ñun ñii nag ne dëgg rek a ñu tax a jóg réew mi rek kañ tax a jóg soxlawuñu alal soxlawuñu tur soxlawuñu ay fond fond caisse noire lenn rek ñu tax a jóg mooy réew mi na baax ba doomu réew mi kenn ku ne gis boppam ci réew mi ba kenn dootul dee géej gi pour dem uti loo xam ne mën na ko am ci réew ba kenn dootul nekk ci réew mi waaye nekk gan ci biir réewam nit mën a jóge ci àll ba ñëw am lu mu amul moom ci réewam ci ni mu gën a yombee yooyu yëpp su dee loolu moo ñu tax a jóg dafa ànd ak nag ñun ñëpp ñu bàyyi distinction parti politique mouvement citoyen ak keneen ak keneen bu desee lu dul dem élection mouvement citoyen ni mën na ne sama yoon newu ci ku nekk na dem élection waaye bu dee xeex ngir ñu delloo réew mi boppam ki ci nekk ci parti politique société civile mouvement citoyen ak ki ci sax personnalité indépendante dañu war a daje autour de l'essentiel te loolu lañu ñu askan bi wax parce que keroog bi ñuy génn kenn xamuloon kan moo ci mouvement citoyen wala parti politique kan moo ci étudiant wala kan moo ci ouvrier kan moo ci balante wala kan moo ci séeréer dañoo daje ñun ñëpp autour de l'essentiel mooy la vérité kon ñëw bi it ni ma ko defee feneen ak feneen li solo si mooy confiance boobu peuple bi am ci ñun ak message bi euh, bataaxal bi nga xam ne yónnee nañu ko ñu mën koo euh, tekki firi ko te bokk na ci niñ koy tekkee mooy ñu jàppante gën a dëgër ba lu bëri ñu doon xeex te tey mën naa sotti ndax su ma jëlee exemple bu gën ndaw rek mooy li ñu doon xeex ci suñu pétrole suñu gaz bu ñu foog ni jeex na de tey la tey la gën a actuel te xeex ñu ciy xeex pour delloo si suñu alal suñu réew te mu mën a ne ma wax ko Sénégalais yëpp lu mën a ne la mën nañu dem ba lii nga xam ne yàlla wërsëg luñ ko te muy lu bëree bëri bëri liñ ci wax Sénégalais yi lañ ci nëbb moo ëpp muy ci quantité yi muy ci qualité bi mooy liñ ci war a am tey mun nañ koo ful ba loolay defar Sénégal ba kenn dootul toog am problème faju wala problème mu njàng wala yu demee noonu loolu defe naa ci bokk na ci li gënoon Euh, euh, yitteel plateforme doy na ak yeneen ak yeneen ñoo lànk bi moins ak yeneen ak yeneen ni ko ñeneen di defee d'ailleurs ci yeneen secteur parce que dafa mel ni mouvement citoyen yi dañu spécialisé wu boo jëlee doy na moom accaparement foncier yu demee noonu injustice yi la gën a kii euh, boo jëlee frappe moom xaw naa gën a yaatu ainsi de suite yooyu yëpp laa ne ñu boole kook ñi bëgg a xeex foofu ci parti politique yi ñu daje ci benn mbooloo bu am doole du mbooloo politique du mbooloo calcul du mbooloo élection parce que ki wàll yàlla war a fal yàlla rek a ko xam ku yàlla war a fal ku yàlla rek a ko xam mais mbooloo la boo xam ne askan wi moo ñu tax a jóg te askan wi sonn askan bi jaaxle na il faut ñu xeetali askan woowu loolu tam bokk na ci euh, solo yu tànk yi ñuy dox di ko bokk ak acteurs yëpp muy appel bu ñuy lancé fii également bu loolu weesoo nag di leen gërëm di leen sant di leen wax nii tey la ñu gën a am ouverture pour jàppanteeg ñëpp liggéey ak ñëpp parce parce que Sénégal ko soxla rawatina ñoo lànk euh, di leen féliciter seen taxawaay di wax nit euh, courage bi ngeen am ak yëg-yëg bi ngeen am ci seen réew te ñu bëri ci yéen di ndaw mënoon na def yeneen calcul wala ñu ne suñu suñu yëngalee ba affaire bi xaw a commencé am tour suñu demee ci gaaya dinañu jox xaalis jox ñu poste ñu toog courage boobu ngeen am loolu mooy defar am réew loolu jaamu yàlla la parce que jaamu yàlla bu jàpp nit ñi jàpp ni rek këpp këppal la ak yor kurus loolu baax na trop jaamu yàlla la ci lu gën a sell waaye jël sa ndaw jël sa doole ne dama koo jagleel sama askan pour mu baax gëm naa ni jaamu yàlla gënu koo kawe te ci loolu ngeen nekk yàlla nañ ci yàlla jàppale donc rapidement français nous étions toujours dans le cadre de nos tournées de remerciements et de réflexion prospective euh, auprès des organisations politiques, citoyennes et civiles.